alhamdulilahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala sayyidil mursaliin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain amma baad mbokki jullit yi ñu ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di ko màggal ci melokaanam yu màgg yi di ko sant ci xéewalam yu mag yi di seede ne amul kenn ku yeyoo dara ci xeeti jaamu ku dul moom di seede ne muhammad sallallahu alayhi wa alihi ndawam la lum yónni mu jottali lam ko yónni muy diine ji ca nam gën a jube ak ca nam gën a leere yàlla yàlla dolli ci moom xéewal fayal nu ko ngën ji fay yoo xam ne dana ko fay ab bu jot li lam ko yónni woon ci xeetam gannaaw loolu waxtaane woon nañ ñeenti chart ci chart yi nga xam ne day tax laa ilaha illa allah ji jullit yépp di wax mu amal leen njariñ ëllëg ñu agsi ci juróomeelu chart bi juróomeelu chart bi nag moo di bëgg laa ilaha illallah ci boppam ak bëgg li muy tegtale lim làmboo ci tawxiid ak lim làmboo ci ay ndigal ak i tere nit ki bëgg ko ci xolam am ci ak cofeelu boppam kooku mooy juróomeelu charte bi bëgg googu nag lu am solo ci laa mi ngi wax ne am na ci nit ñi day ñoo xam ne dañuy wutal yàlla moroom bëgg leen sax ak mbëggeel goo xam ne day mel ni mbëggeel gi ñu waroon a bëgg yàlla mu ne waaye ñi gëm yàlla ñooñu seenu mbëggeel moo gën a tar ndax ki bëgg yàlla yàllay kese joo xam ne jaxasi ko ak dara looy def lu nekk moo lay tax a def bokkul ak ki nga xam ne daf ne bëgg na yàlla ba noppi bëgg ñeneen ba yemale leen ak yàlla ndax kooku ak mbëggeel guñ séddale la yor te kii mbëggeel gi mu yor lépp jox na ko boroomam kon moo gën a tar ak mbëggeel mbëggeel googu nag day am fu muy àgg day soppi ku nekk ak bokkaale koo xam ne mën naa dem wala yaasu billahi ba génne nit ki ci diine te du ko yëg ba génne nit ki ci diine te du ko yëg yàlla nu yàlla musal ci loolu <coughs> mooy jamono yi demee ba àgg ci nag yemale nit ak yàlla ba su waree jaamu yàlla wa jàpp na ne war naa defal nit leneen loo xam ne bu ko tuddewul jaamu it loola jaamu la moo xam ci ay waxam la bu sant jotee ci xéewal ya nga xam ne moom la ko boroom jagleel mu jagleel nit ka sant cant ga foofu nag lu ma tax xàmmee ngi fi ndax sant nit terewuñ ko ki la defal lu baax sant ko wàññiwul dara waaye nga xam ne xéewal ga ca sa boroom la jóge waaye léeg-léeg da nga gis koo xam ne xéewal gi mu yor sax mënul ne nitam a ko defal ndax xëy na mooy kër kër yi di def ay liggéeyam ak i coonaam ba xéewal tàbbi ci loxoom kooka buy sant yàlla rekk lay sant waaye léegi léeg nga gis nit koo xam ne xéewal gu mel noonu day tàbbi ci loxoom ba noppi buy sant keneen lay sant ku dul yàlla loolu wala iyaatu billahi day tàbbal nit ki ci bokkaale day tax nit ki dem ba yabale boroomam ak moroomam te loolu jaaduwul moo tax yéefar yi bokk na ci seen mbugal yi nga xam ne des na leen ko mbugal ëllëg seenu yamale ya ñuy jaamu ñu yamale ko ak yàlla moo tax borom bi nettali na seen mbir ne dañuy wax bu ëllëgee buñ tàbbaleen ca sawara wa ñu naan tallahi in kunna la fi dalalin mubin nun day noo ngi nekkoon ci ak réer gu méttee méttee métti it nu sawikum bi rabbil alamin ba nga xamee ne noo ngi loon doon yemale ak ki nga xam ne ndekete moo bind bindeef yi kon bu ëllëgee ñañ doon jaamu la ñuy jàkkaarloo di ko wax ak ñoom moo xam loolee ñu doon jaamu ay bant la yu njett wala ay malaaka la wala ay yonent lañ wala aw nit ñu baax su boobaa dañ naan nun day ndekete danoo réeroon ban leen di yemale ak ki nga xam ne ndekete moonu bindoon bind leen yéen ñii kon kooku lu mat a teel a xam la borom bi tabaraka wa taala waxaat na ne yéen ñi gëm yàlla su ngeen demoon ba bàyyi seen diine mooy dellu gannaaw di jaamu leneen lu dul yàlla xam leen ne yàlla dana indi aw nit ñoo xam ne sopp na leen ñooñu sopp nañ ko <coughs> yàlla dana indi nit ñoo xam ne sopp na leen ñu sopp ko ña nag mu tudd leen ci seeni melokaan yuxibuhum wa yuxibuunahu baat bu rëy rëy la day wane ne cofeel gi munta ñàkk ci diini ci nee na ñooñu seen melokaan bokk na ci adillatin ala al muminin ci seen kanam yi moroomi jullit ñu toroxlu la ñuy doon ñu nooy la ñuy doon ñu lewet la ñuy doon bu dee seen diggante seen jullit seen moroomi jullit waaye nag aizzatin ala al kafirin ñu tar la ñuy doon ci seen diggante ak yéefar ya ndax yéefar bi ak jullit bi kenn ku ci ne nit la waaye dafa am lu leen tàqale mooy kii dafa nangu kële lànk kon soo dee lewet ci kanam kii nangu gim nangu moo tax waaye soo dee wex wala ngay <coughs> tàng ci kanam kële ñàkk a nangul borom gim boromam gim ko ñàkk nangu loolu moo tax su boobaa kon ñaari melokaan ngoog <coughs> bi ci tegu mën a yujaahiduuna fi sabilillah nee na ñooñu dañuy nangoo jihaad fi sabilillah moo xam ci seen i bakkan lay doon wala ci seen alal wala ci seen i xam-xam wala ci seen i laayante biir digle ak tere lenn lu ci nekk dafa am ay chartam yoo xam ne su dajee rek su boobaa mooy taxaw mu ne wala yaxaafuuna lawmata laaim bokk na ci seen melokaan nee na buñ gisee dëgg jàpp gañ ci jàpp digle gu baax ga ñuy digle lu baax tere lu bon ga ñuy tere lu bon ragaluñ ci kenn di leen ci yett ragalu ci kenn du leen ci yedd kon mën nañoo jëriñoo ci aaya bi ne li am solo ci dundu doomu ji mooy na fexe ba sellal digganteem ak boroomam ci ak jaamu yàlla na yàlla rek tax muy jaamu waaye bu mu yemale boroomam ak keneen cofeel gi fi leer itam gu màgg la mooy cofeel gi mu tudd muy nit ki bëgg boroomam boroomam wëlbati ku bëgg ko loolu kon du lu woyaf waaye nag mbëggeelu ñaareel gi muy mbëgg gëm leen di bëgg moom suñ boroom day tegu ci kaw mbëggeel gi ñu bëgg seen boroom ñoom kon mbëggeel gi nga bëgg yàlla bëgg ko diineem jàpp ci jàpp ci sunna yonentam loolu mooy jur yàlla bëgg la waaye du safaan ba mooy am borom bi tabaraka wa taala it tagg na bàkk kañ ñi nga xam ne ñoo jàpp ci ngëm ngëm goo xam ne jàppuñu ci rek di def ndigal yi ak tere yi jàpp ne ay yan yu diis la waaye dañ koy def ba noppi yëg ne lii dañ koo bëgg ci seen xol di ko def jariñoo nañ ci aaya bi itam ne mujj ga ak lu yëf yi metti metti lu mu jafe-jafe mujj ga ak ngañaay la ci loxoy jullit yi rek lay mujj loxoy ñi ragal sunu borom tabaraka wa taala al aqibatu lil muttaqin ci xadisu buxaari ak muslim anas ibnu malik radiallahu taala anhu nee na yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na ñett a ngi yoo xam ne kum daje ci sa xol da yi yëg neexitu gëm yàlla neexitu gëm yàlla ci xol nag day lu am solo ndax su demee ba am ci xol bi mooy woyofal lépp ci cër yi jamono yoo xam ne yëg nga ne def jaamu yàlla yi diis na ci cër yi xamal ne neexitu ngëm yàlla gi des na ci xol bi jamono yoo tëddee ba guddi sedd bi metti nga dégg ñi nodd nga yëg ni ci ndox mu sedd nga war a jàpp nga jóg di jàppi ca ndox mu sedd ma yëg ak woyof lool aku cawarte xam li ngay def xamal ne loolu lenn la ci cafkal ngëm yàlla jamono yi ñu demee ba tàngoor wi metti mar wi mën a metti lool ak xiif bi nga mën a jàpp woor jëlale naa sax koorug ramadan waaye nga mën a woor koorug ngàtt nga koo xam ne naafila la boole ko ak yëgub cawarte nag ci koor googu ngay def xamal ne la lenn la ci cafkal ngëm yàlla gi waaye jamono yoo demee ba yiñ farataal ci yow soo koy jóg di def yi da ngay mel ne ku yanu ab saakub suuf mu diis a ci cër yi metti lool su jubee nga ne nañ gaaw def julli gi ba féeteeg sun këccu niñ koy waxe xamal ne bu boobaa neexiitu ngëm yàlla wi des na ci xol bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne yàtt yii kum daje ci yow da nga mos neexiitu ngëm yàlla da nga mos neexiitu ngëm yàlla ngëm yàlla moom képp ku ko am ku nekk rek lu neex la waaye nag dara dana neex ba noppi même ci ñam yi sax am na ñam muy neex waaye mu dugg ci gémmiñu koo xam ne du neex ci moom ndax fekk na dafa sibru gémmiñ gi sobul dara wala buy lekk dara lu neex sax day mel ne dafa wex ci moom loola nekkul ci ñam yi waaye ci jëmm ja la jëmm ja moo wérut loolu nag loolu muy dalee gémmiñ ba du sawar ci lekk noonu lay dalee xol bi ba du sawar ci def jaamu yàlla yi du sawar ci def lu baax moo tax mu ne bi ci jiitu mooy yàllaa ko yonentam gënal ko leneen lu dul moom lu dul ñaar yooyu yàllaa ko yonentam gënal ko leneen lu dul ñaar yooyu kooku mooy tomb bu njëkk bi ku muy bëgg ci nit ñi itam day fekk ne ngir yàlla tax mu bëgg ko loolu mooy lan mooy su koy bëgg ni mu baaxe ni nangoo toppi ndigali yàlla yi ni nangoo bàyyee tereem yi loolu moo tax mu bëgg ko wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah sa jàpp ci diine ji mooy tax mu bëgg la suy bañit nee na lay tax muy bañ mooy yàllay kese mooy tax lu bari ci nit ñi la ku baax fi ñoom mooy kala defal dara ka baax fi ñoom mooy koo xam ne boo yëkkatee sa aajo ñëw ne ko damaa soxla nangam mu fajal la sa aajo ñu ne kooku ku baax la waaye xooluñu ndax ca yeneen yu baaxee ca des yan taxawaay la ca am diine yàlla ji ban taxawaay la ci am pas-pasam ay jaamu yàlla am ak toppam sunna ay yeneen jikkoom yu rafet yi ban taxawaay la fa am su doonoon ko saggan ci yeneen yi ci des yépp waaye bu yëkkatee aajoom jox ko rek mu ne ah diw sàngam ku baax la waaye loolu du mooy nat loolu du nattukaay bi faj aajo jullit yi lu baax a baax la ci jaamu yàlla yu mag yi ci la bokk waaye nag du mooy lépp am na yeneen yu jiitu nangam nangam tegu ci nangam tegu ci ba agsi ci yooyu su yooyu amut su la àdduna li ci biiram àndoon di tagg itam du tax mugg nit ki yeeyoo ak tagg kon la muy bëgg ka muy bëgg wala la muy bëgg yàllaay tax ndax dafa baax ci yoonu yàlla dafa baax ci diine ji moo tax mu bëgg ko ñetteel ba mooy mu bañ bañ a dellu ci kéefër ak bokkaale ak lépp lu ko nuru comme ni muy bañe ku ko jël tàbbal ko ci sawara suñ taaloon sébbub sawara muy tàkk ñu ñëw di jël doomu aadama bëgg koo sànni ci biir nee na na bañe nangay ngay gàntoo ku la ñoddi bëgg laa jëme ci kéefër wala mu jëme la ci bokkaale gàntool nu raw noonu kon ñetti mbir a na bëggee yàlla ak yonent bi nu bëggewul kenn ku muy bëgg ku nekk ci kaw suuf si wala lu muy bëgg lu nekk na yàlla tax na bañ kéefar ak bokkaale ak bidaa ak lépp lu ca yóbbu doomu aadama ni muy bañee ku ko bëggoon jàpp di ko tàbbal ci sawara kon ñetti mbir a ngoog yoo xam ne benn bu ci nekk euh, bu mënta ñàkk la ngir nit ki mën a mos neexaay bi nga xam ne ngëm yàlla neex na ko foofu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis bi ab sew sew ngi ci biir ndax daf ne nga bëgg yàlla ak yonent bi nga bëgg leen ñoom ñaar la ñoom ñaar nga bëgg leen noo bëggewul kenn baatu ñoom ñaar boobu nag bul jàpp ne foofu bokkaale la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa am ku taxaw di xutba daldi julli ci yonent bi sant yàlla julli ci yonent bi daldi ne ku topp yàlla ak yonentam texe nga ku leen mooy ñoom ñaar bew nga yonent bi sallallahu alayhi ne ko bi sal xatibu anta yaa bonub xutba loolu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax sab xutba baaxul ndax lim ne ku leen mooy ñoom ñaar foofu nag leeral gi fi am moo di fii mu ne ku leen topp ñoom ñaar topp leen ñoom ñaar ñëpp dafa munta ñàkk boo ne woon mbëggeel gi damay bëgg yàlla waaye boolewuma ci yonent bi du sotti boo ne woon yonent bi laay bëgg waaye boolewuma ci yàlla du sotti kon ñoom ñaar ñoo taqaloo moo tax xadis bi nangu ñoom ñaar gi bi mu nee nag ku leen mooy ñoom ñaar bew nga dañuy bañ nga déggee ci ne ku mooy kenn ki te moyoo ñaar ñi bewoo wax bu xóot la day bañ nga déggee ci ne ah ginnaaw ñoom ñaar la wax kon mën na maa mooy yàlla topp yonent bi kon duma bew déedéet foofu demewul noonu kenn ku ci nekk boo ko moyee rek bew nga boo moyee yàlla bew nga boo moyee yonent bi sallallahu alayhi wasallam bew nga waaye nag bu dee ci mbëggeel faw nga bëgg yàlla bëgg yonent bi mu door a doon mbëggeel bu sotti moo tax fii ñaar yi mën naa wax ne ñoom ñaar waaye fii mënul doo wax ne ñoom ñaar fee moom kenn ki rek doy na mooy yàlla gi kenn ki rek doy na boo moyee yàlla alkande dikk na boo mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dikk na kon koo ci mooy musiba la ci yow anas ibnu malik radiallahu taala anhu nettali na mu ne am na benn waay benn bis mu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daal tey damay laaj yowmal qiyaam kañ lay taxaw maanaam àdduna kañ lay tukki léeg-léeg nit ki dana laaj loo xam ne lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam la léeg-léeg ñu laaj itam lu xamut waaye léeg-léeg mu tontoo nit ki ne ko xawma loolu comme ci xadisu jibril ci saxiixu muslim bi mu dikkee di ko laaj laaj yu bëree bi mu agsee ci ne ko kañ la yomal xiyaam di taxaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko maa ngi yow kenn xamu ko ci ki koy laaj ak ki ñu koy laaj ñoo ci yem mal masulu anha bi a'lama min as kii nag bi mu ñëwee ne ko kañ la yowmal xiyaam kële doon laaj foofu malaaka la woon xam na ne da doon laaj laaju jàngale kii nag daa ñëw di laaj pour xam nit la kenn ci saxaaba yi mata saa kañ la yowmal xiyaam di taxaw kooku ne ko xawma ko rek doyut waaye yonente bi sallallahu alayhi ne ko maa aadatta laha ana loo ko waajale kañ la yowmal xiyaam di taxaw mu ne ko loo ko waajale ndax kañ la ji amut solo ci yow waaye li nga ko waajale yow ba bu dikkee fekk la ca mooy lan waajale ko day waajalewuma ko day julli gu bari waajalewuma ko it koor gu bari waajale ko bu ma ko it sarax su bari xëy na yooyu daal samay farata laa cay def ak tuuti ci ay naafila waaye nag yëg naa ci sama bopp day ne ku bëgg yàlla akub yonentam laa ku bëgg yàlla akub yonentam laa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yaa ña nga bëgg yéenay ànd nit ki këm bëgg lay àndal kon kooku seede su rëy la loo soo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seedeel na ko saxaabi boobu anas nee na biñ déggee waa ji laaj lii yonente bi sallallahu alayhi wa tontu ko lii nu ne ko waaw nun nag ndax nun bëgg nan yàllaa ko yonentam mu ne leen waaw waaw nee na bis boobu bég na mbég moo xam ne euh, jéggi na dayo mbér mbég moo xam ne tar na lool kon mbokki jullit yi bëgg yàlla akub yonentam wax la ci làmmiñ waaye pas-pas la ci xol waaye jëf la itam ci ay cër faawu jullit bi wax ne bëgg naa yàlla ak yonent bi du doy mu wax ko mukk ci làmmiñam waaye dana ko wax ci làmmiñ wi dana ko fasit ci xol bi mu doon ci moom lu wér ndax wóor na ko ne kum mën a doon ci kaw suuf ak lum la fonk fonk ak lum la bëgg-bëgg ngay baay ba ngay ndeyja ngay sëriñ ba ngay loo mën a doon ci moom jamono yoo xamee ne sa ndigal taxaw na ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw ñi jooyaloo ñoom ñaar ndigalul yàllaa ko yonentam lay topp bëggeel googu foofu lay àgg ci xol bi nit ki nag la mu wax ne bëgg naa yonent bi door a doon dëgg ci moom jamono yi demee ba àgg foofu ci xol bi cër yi wane ko ci bitti su boobaa mbëggeel ga dana doon mbëggeel goo xam ne gu wér la kon kooku mooy sartu juróomeel bi juróom-bennee la sart bi ci suruti la ilaha illallah mooy nangoo nangoo wammatu bi laa ilaha illallah bi ko waxee ba noppi ya muy digle ak ya muy tere nangu caa wammatu nangu koo def <coughs> borom bi tabaraka wa taala mi ngi wax ne wa anibu ila rabbikum wa aslimu la dellu leen ci seen borom maanaam ci seen diini borom boole ngeen jox ko seen bopp wa aslimu lahu boo ko doon firi da wax ne jébbalu leen ci yàlla jébbalu leen ci yàlla mooy jël sa bopp nos ko jox ko sa borom tabaraka wa taala xam nga ne ci suuratu li balqiis muy soxna sa ñëwoon ca suleymaan alayhi salaam suleymaan di buur di yonent ndaw sa di buur képp biñ demee ba jaar fañ jaar ba ndaw sa dikk seet ko bi mu dikkee ba suleymaan woo ko ci ngëm yàlla ba mu gëmee ba muy wax jébbalu naa dafa wax ne aslamtu maa suleymaana lillahi rabbil alamin <coughs> kon jébbalu naa maag suleymaan ci yàlla waaye waxul ne jébbal naa sama bopp suleymaan ànd ak nag yonent la buur la moo ko woo moo ko dugal ci lislaam bi waaye ba mu demee ba dara desut nag lu dul jébbalu dane maag Suleymaan kon jébbalu nan ci yàlla jim may woo kon noonu la ñuy jébbaloo moo tax aslamtu wajhi joo gis ju ne rek li rabbin moo ciy tegu jébbal naa saa bopp ñeel yàlla moo tax boroom bi tabaraka wa taala ne wa man axsanu diinan mimman aslama wajhahu lillah kenn gënlewul diine ki jël boppam jox ko yàlla wa huwa muxsinun boole koog nag di def lu rafet di ko wax wattabaa millata ibrahima xanifan mu topp nag yoonu ibrahim wi nga xam ne mooy yoonu tawxid wi nga xam ne daa jàng bàyyi lépp luy nuroog bokkaale wala muy nuru bidaa tegaat ca ne wa man yuslim wajhahu ila allahi wa huwa muxsin jël sa bopp jébbal ko yàlla boole koog di jëf lu rafet di ko wax nee na kooku jàpp na ci buum gu dëgër gi nga xam ne su ko bàyyiwul àjjana la ko jëme borom bi tabaraka wa taala waxaat ne fala wa rabbika laa yuminuun nee na nit ñi day du ñu mën a gëm yàlla xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum lu dul lu xew seen diggante ci xeeti juuyoo dañoo delsiwaat ci yow nga att leen summa laa yajidoo fi anfusihim xarajan mimma qadayta wa yusallimu taslima kon ñetti mbir a ngi foofu yoo xam ne benn mënu cee ñàkk bu jëkk bi moo di li xew ci ak juuyoo akuk werante ka ci mën a àtte nit ñi bañ jub kooka mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy su dund ci dundam su ma dara masee xew lu nar a jooyalew nit dañuy waaxu ñëw ci moom mu àtte kon bi mu jógee te bàyyi fi sunnaam su nit ñi juuyoo ci lu mën a doon ci diine ngir ñu mën a jub faaw ñu waaxu dikk ci sunna yonent bi mu àtte leen kon taxkiimu rasul mooy bi ci jiitu ñaareel bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak diini lislaam ji lum atte lu ne nga bañ caa yëg naqaru xol tëriinu yàlla ak tëriinu yonentam mu wóor la ne nii la ko tëre noonu la tëdde da nga caa war a yëg féexu xol ak mbégte waaye jamono yi nga koy atteloo mu atteel la say mbir doo ca yëg aw naqar ñetteel bi mooy ak taslimul kaamil li xukmihi mooy atte bi nga xam ne moom la atte ni nii la nga jëfe ko bi ne laa atte ma bi nga ñëwee ci moom ne ko atte ma mu atte la ñu ne laa ah, yow kat lii nga def sa jëf ji wala sa wax ji lii la ci sunna wax nga am tam xol la ci tegu mooy nga jëfe ko yooyu su àndee jàppal ne yow kon yaa ngi topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi koy gëm itam moo tax borom bi tabaraka wa taala ci beneen aaya bi dafa ne su ngeen juuyoo su ngeen juuyoo wala ngeen werante ci lu mu mën a doon delloo leen ko ci téere bi yàlla bi ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon mépp mbir moo xam ne doomu aadama yi ñu ngi cay juuyoo wala ñu cay werante wala ñu jàppee ko mu doon loo xam ne lu mën a féewale nit ñi la wala mu mën leen a noonale leen di mën a jubal mooy dellu ci alxuraan sunna képp ci ŋaayoo ak xuloo ak weranteeg sonalanteeg rayante rek ci li ñuy wéy alquran ak sunna képp moo mën a teg mooy yoon wi borom bi tabaraka wa xal doomu aadama yi mën cee jaar seen mbir jub ànd ak jàmm xuloo du am iñaanante du am werante du am ñi jaar siraatul mustaqim ne nocc lu dul loolu nit ñi moom ci juyoo ak xuloo werante rek ci li ñuy moo tax borom bi tabaraka wa ba ma waxee ne fa in amantum bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw daf ca teg ne wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaaq suñ gëmee ngëm gu mel ni gi ngeen gëm yow yonent bi yaag saxaaba yi nee na ñooñu kon gindiku nañ jaar nañ ci yoonu jub wi waaye nag suñ wanee gannaaw lii nga xàlloon nee na ñu ci juyoo rek li ñu wéy fa innama hum fi shiqaaq borom bi tabaraka wa waxaat na ne wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyaratu min amrihim yàllaa ko yonentam suñ xasee atte ne nii la nee na jullit bu góor wala jullit bu jigéen day sañatuñoo tànn amatuñ choix di wax ne lii moo ma gënal kenn lee moo ma gënal yàlla tànn na nee na nii la yonent bi ñëw ne nii la mais jullit moom amatul lu muy tànn bu boobaa topp yàllaa ko yonentam rek moo ko war kon nag loolu mooy mooy jël sa bopp joxe ko sa bopp moom lañuy ñu tudde inqiyaat mooy wommatu waaye soo doon wax laa ilaha illallah ba déwén te yi ñuy digle di ko tere toppoo ko jëfewoo ko itam kon laa ilaha illallah ji du doon loo am jëriñ kon mbëggeelug laa ilaha illallah dafa war a àgg ci bëgg ko ba bëgg lépp loo xam ne lu baax lu war ci yow la mbëggeel goo xam ne day tax ngay def lu baax la war ci yow mën naa dem sax ba àgg ci tax ngay def lu baax li nga xam ne warut ci yow maanaam sunna la luñ sopp la ci yow ci julli ci koor yaag euh, ya ko nuru bañ gi itam lu safaanoo ak laa ilaha illallah mbañeel goo xam ne dana la tax a bàyyi lu xaraam waaye dana dem ba tax mu bàyyi loola itam lépp loo xam ne luñ sib la wala lépp loo xam ne jege na ay caaxaan kon laa ilaha illallah ji noonu lay liggéeyee nit ki ba mu doon keneenum nit koo xam ne ku soppiku la ku tegu ci siraatul mustaqim la ku mel ni ko boroomam bëggee la jamono yoo xam ne jullit yi nag dem nañ ba mel noona wala la ëpp ci ñoom mel noona su boobaa societé li ñuy dund boo xam ne société bu teey ak dund la bu amuk dal la bu mucc ci nëx lay doon bu mucc ci werante ak lorante ak fexeente su boobaa moom lay doon kenn duutu fexeel sa moroom kenn ku ne li nga bëggal sa bopp da nga koy bëggal sa mbokkum jullit sa xel du xalaat di dem di jalgati alali kenn di ko jëmale ci sa alal su boobaa dund gu teey daal ci gàttal moom la ñuy dund fii ci àdduna ëllëg ñu dem wuy ji suñ borom tabbi àjjana yàlla na suñ borom tabaraka wa taala defal loolu moo tax yonente bi alayhi salaatu bi ñuy mujjee mooy fi ne kenn ci yéen du gëm ngëmam du mën a mat mukk wala muy baax lu dul man maa ko gënal ay doomam gënal ko baayam gënal ko mboolem nit ñi loolu nag du loo xam ne rek nit ki da koy wax ci làmmiñam mu doy mu kay dana ko wax ci làmmiñam waaye nag du doy war ngaa nangoo wax ne yonent bi moo la gënal sa yaay gënal la say doom gënal la say alal gënal la mboolem nit ñi mas a juddu waaye nag wax ji bu amee ba àggal jëf ji da koy firndeel moo di da ngay gëm ne lim fi indi yàlla wàcce ko ci moom muy alquranul karim lim wàccee ci moom muy sunna mu leeralal nu alquran da ngay nangoo topp loolu nangu koo jëfe waaye su amee dara lu ci wérul rek wala lu ci manqué te nga xam ko ba noppi woon ko gannaaw loola nam toll rek la ca fell rek xamal ne loola fell na ci sëg mbëggeel ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam donte guddeeg bëccëg sax ngay wax ne sopp naa ko waaye lu fell lu ne xamal ne loola fell na ci mbëggeel ga واذكروا جميعا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين وقال سبحانه وتعالى في الكتاب المبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين واحم حوزة الدين واكفنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وبغي الباغين والطغاة المتمردين وجنود إبليس أجمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين wa aqimi salaa